ñoo bokk ndey ak baay mu nekk caatu kër gi kilifa nag yàlla moo koy def yàlla def ko kilifa jikko yi mu yor buñ ci wax fi ba suba duñu yeggal wallaahi yàlla xam na ko ah mu nekk nit ku baax nit ku am yar nit ku am kilifa nit ku social nag ku social vraiment dafa doon nit koo xamante ni macha allah bi ko yàlla jàppalee ba mu réussir dafa gëstu ginnaawam parce que tey boo duggoon ci koñ bi ci jàkk ji école bi nekk ci kaw nii euh, su dee réalisation soixante-dix pour cent yi mu ñaar moo ko réalisé maa ko yoroon lu manqué su ma ko laajee mu jox ma ma def ci. nit ku jullite la nit ku mun a taxawu nit ci bësam kooku moom xam naa ne mun naa ko seede ci moom ndax. nit ki dafa am fooy toll soo yoree yenn nombu tànk yi il faut nga xam sa taxawaay si dëkk ak fi nga dëkk. vraiment toppatoo na njabootu baayam euh, yaayam bàyyi na ko fi génn àdduna baayam bàyyi na ko fi génn àdduna waaye rëccuwuñ ci dara. bon mu ñaar daal li ma mën a fàttaliku ci moom ci taabooy mooy euh, dañaan ànd taabooy di xeexi daan jóge koñ bi dem xeex beneen koñ. mais bu ñu demee ñooñu bu ñu ëppee doole mundial bi bokk suñuy daw parce que mosoon dem benn benn koñ këri suuf attaqué leen di xeex ak ñoom suñuy morom lañu woon bi leen gagné rek automatiquement seen mag yi ñëw mais ñun suñu group bi pratiquement genn wàll gi yëpp dañu xawoon daw mais il moom man ak moom ak ñeneen bokkoon nañ ñu taxawoon kon nga xam ni moom fit da ko yàgg am. Euh, dafa mos a bëgg a jouer rôle leader. même bi mu nekkee Abdoulaye Sadji moom daa doon yore microcentral ci foyer socio-éducatif yi donc loolu képp ku jaar Abdoulaye Sadji ban na ko témoigner maanaam dafa mës a bëgg micro mës a bëgg jouer rôle leader moo tax lépp lu muy def da koy def sans réserve sans retenue